الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السؤال الذي نطرحه هو هل يمكن أن يكون المسلم علماني حيث حرم الله تعالى في أول الإسلام زواج المسلم من الكافرة وزواج المسلمة من الكافر ولذا حتى ينتوي أساس الجيل الأول على قوة اليقين والاعتقاد من غير ما يحدث صفائه فقال عز وجل في محكم التنزيل ولا تنكه المشركات حتى يؤمن ولعمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw lool bi mbokk yi laaj bi mooy hal yumkin an yakuna al muslim ilmaani ndax ab jullit mën naa nekk layik ndax nit mën na nekk jullit ba pare gëm laïcité lu waral loolu mooy ngëm yàlla subhanahu wa taala sunu boroom pas-pas la bu nit di fas waaye aw dundil la wu nit di dund ginnaaw ba mu ko fasee soo waxee ne man yàlla mooy sama boroom muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mooy sama yonent islaam mooy sama diine alquran mooy sama téere kon ci doxalin boobu ci dundin woowu ci ñetti mbir yooyu nga wax ci yooyu nga war a dund laïcité nag mooy tàqale dundin ak diine dinaa dund sama dund waaye yoonu diine nekku ci ndax loolu mbokk yi ab jullit mën na ko dund mën na ko nekk ginnaaw ba nu nangoo tey wala gis mboolem li ëpp ci àddina bi wala ci ay nit ci ay jullit soo leen waxee ne yéen ay jullit ngeen ñu ne waaw waaye boo xoolee doxalin dund woowu ak jëf bi da ngay fekk ne lu ci bari wax kese la waaye dund diine bi amul ixwatal iman bu fekkente ne da ngaa bëgg a nekk jullit ba pare nekk ku layk kon xam nga lu la war al insaa min ad diin kullihi da ngay simmeeku diine da ngay simmi mbubu diine bi nga wékk ko fële nga sol mbubu laïcité bi nga dem nga yëg ne ñaar yi mënul ànd sunu borom subhanahu wa taala dafa wax ci alquran ba muy wax aaya bi dafa woo ñi gëm ci baatu ngëm la leen woo yaa ayuha alladina amanu udxulu fi silmi kaafa yéen ñi gëm diine ji diine ji da ngeen di dugg ci lépp diine lislaam amul ngarale amul mun naa weex mën ñuul amul bu ma neexee ma nekk jullit bu ma neexee ma def leneen amul waaw jullit laa waaye nag bon déedéet loolu amul ci islaam loolu dafa war a leer ci suñu bopp ñun ñëpp su leeree rek nu noppalu yàlla nee na ci suratul baqara ba tey afa tuminuuna bi baadi alkitab wa takfuruuna bi baad fama jazaau man yafalu zalika minkum illa xizyun fi lxayati dunya wa yawma alqiyamati yuradduuna ila asaddi alazab wa ma allahu bi gafilin amma taamaluun sunu borom nee na ndax da ngeen a bëgg a gëm lenn ci téere bi weddi lenn afa tuminuna bi baadil kitab wa takfuruna bi baad ndax da ngeen a bëgg a wax ay jullit ngeen waaye gëm lii waaw d'accord naa li yàllaa ko wax waaye nag waaye waaye nag amul ci islam place mukk waaye nag amul ci diine ji di islam place gëm nga da ngay sànni sa banneexi bakkan def li yàlla bëgg loolu la yonent bi wax wallahi la yumin la yumin ahadukum hatta yakunu hawaahu tabaan lima jitu bii kenn ci yéen ngëm yàllaam du mën a mat lu dul day sànni bànneexi bakkanam topp man muhammad li ma indi loolu la yàlla ne ndax da ngeen di gëm lenn bàyyi lenn afa tuminuuna bi baad alkitab wa takfuruuna bi baad sunu borom ne fama jazaau man yafalu zalika minkum xam ngeen lan mooy fayu ku def loolu ki gëm lenn ci sama diine sànni leneen li xam ngeen lan laa koy fëllëg illa xizyun fi lxayaati dunia dund gi muy dund ba laa laaxira danaa ko gàcceel xiz ci dund gii fi lxayaati dunia dana am gàcce ci àdduna dinaa ko toroxal wa yawma alqiyam yuradduuna ila asaddil azab yàlla leen bu ñu demee ba àlaaxira nag yawma alqiyam ma dugal ko ci mbugal moo xam ne kenn du ko ci génne sunu borom ba mu continuer aaya bi ci baqara ba tey de dafa ne ulaika alladina ishtaraw alxayata addunya bil axira fala yuxafafu anhum aladab wala hum yunsarun ñooñu taqale seen diine gëm lenn bàyyi lenn ñooñu ñi nga xam ne dañoo jënd àdduna ak ci alaxira ulaika alladina ishtaraw alxayata addunya bil axira borom bi ne fala yuxafafu anhumul azab maa ngi giñ ci sama màggaay ne ñooñu mbugal mi du ma ko oyofal sax seen kaw te yowmal xiyaam duñ fa am kenn ku leen di dimbali wala hum yunsarun su fekkee aaya bi nekkul baqara après ngeen wax ma ko mbokki jullit yi ab jullit mënta nekk laïc munoo nekk islaam gëm leneen lu dul diine parce que laïcité dafa ñëw pour mab pour détruire diine bi mooy li yàlla wax ak yonentam loolu bu ko kenn jëfe na ngeen ko teg fee na ngeen dund àdduna sans diine àdduna sans yàlla moo tax ñu ne boo bëggee nekk layik li ngay njëkk a def mooy simmeekul ci islaam waaw yëkkati sa loxo ba ñëpp gis la nga leen génn naa ci islaam li kay yarfud la lu tax ndax ku gëm laïcité da ngaa simmeeku ci atte yàlla yi hukman ilahiyan sarihan fi lqurani wa sunna da ngaa simmeeku ci diine yàlla ji da ngaa simmeeku lis ba set wecc ci yàlla li mu wax ci ay atteem ay atte yàlla doo ko nangu loolu moo tax dëkk yi ngeen di gis yépp laïcité nekk fa kenn du fa attewal yàlla wax ñun ñi ci lan bokk kenn du fi attewoo diine yàlla soo waxee nag loolu ñu ne diine bi nangam nangam loolu mooy dañoo gëm ne diine bi dafa tardé xoolal ki gëm ne yàlla li mu wàcce day tardel nit moo tax jullit yi waxuma yéeféer yi sax jullit yi nga xam ne dañuy ne ñoom ay jullit lañ ba pare di dund lay sire duñ am jàmm mukk dañuy sonn mais duñ am jàmm loolu nag alamul islamiye monde islamique bi ko yëpp la xool leen fi jullit yëpp dëkk jàmm amul foofu feebar bi fa la ëppee ñàkk bi fa la ëppee guerre bi fa la ëppee toroxtaange gi fa la ëppee pauvreté bi ñàkk bi fa la ëppee xool leen li ma wax lépp parce que yàlla mooy teg yar ci seen kaw fekk delluwaatuñu ci yàlla li mu bëgg yàlla da leen di taxe ay naafiq yoo xam ne weexuñu ñuuluñu gëmuñu bàyyiwuñu mbokk yi li tax islaam araamal jullit bu góor mu takk yéeféer bu jigéen lu tax lu tax sa piska doom yi ñooy tax yow jullit bu góor ñu ne la bul takk yéeféer bu jigéen ñu ne nag bi gën a garaaw mooy yéeféer bu góor takk jullit bu jigéen booboo gën a dangereux yéeféer laa wax de waxaguma ahlul kitaab buñ la teree ñee ci góor nga nekk góor takk jigéenu yéeféer ñu tere jullit bu jigéen bi yéeféer bu góor takk ko ñaar yépp ñu ñëw ci ahlul kitaab ñu ne ku góor ki nekk jullit moo mun a takk ahlul kitaab bu jigéen ci yahud ak nasaraan lu tax parce que góor moo am pouvoir ci ay doomam ndax dañuy bañ doom yi ëllëg génn seen diine baay waaw su fekkee li yàlla wax na ko ci alxuraan yàlla wax ci suratul baqara ba tey aya 221 mu ne wala tankihu lmushrikat hatta yuminna wala amatum muminatun xayrum min mushrika walaw ajabatkum yàlla nee na maa ngi leen di yëgal de bokkaalekat bu jigéen yéeféer bu jigéen bu ko benn góor ci yéen takk yàlla nee na nga takk jaam bu jigéen jaam bu jigéen nga takk jaamu jullit bu jigéen moo gën nga takk yéeféer bu jigéen yàlla nee na walaw ajabatkum lu ndaw si rafet rafet lu mu leen yéem lu mu luqati sa bët loolu moo ñu dal tey sëy yi nga xam ne ci mbedd yi rek lay amee ci soirée yi ak ci ngénte yi céet yi ngay dajek ab xale bu jigéen rek mu sol ay ray ray dóor ay cheveux indien bomb kanam gi ba mel ne kenn xamul sawaay nga xool ko dootoo mun a am jàmm nga dem takk loo ci jële loolu yonent bi wax ne iyaakum wa xadaraa'u diman qaalu ya rasul allah wa ma xadaraa'u diman qaala almaratu alxusna fi manbaati suu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na maa ngi leen di moyta ndikuloo nëtaxuk gàttaxu sën nëtëxuk gàttaxu sën ñu dégg olof laay waxal nëtëxuk gàttaxu sën Seydina Muhammad nee na mooy tundiku laa leen jigéen ju rafet te amul diine mooy gàttax gu sax ci sën fu ñuy tuure mbalit bu fa gàttax saxee dugub da ngay gis mu vert rafet lool génn fleur waaye cey boo ci yaakaaree mbool doo lekk mooy nataxu gàttaxu sën jigéen ju rafet te amul diine yonent bi loolu la wax mooy tunduk naa leen bis boog ci duggee yonent bi nee na karibat ya daaka dóor nga sa loxo ci ëkk su ngeen xamul ëkk dóor nga sa loxo ci miir ku ku ku añ ba pare mere miir mere sa soxna jàpp miir bi na ko kurfañ tëb du ñaar du ñaar de kurfañ bi du ñaar ndax xam nga fi nga ko dóor dootoo delluwaat waxuma la nga raay de nga dóor ko ak force du ñaar yonent bi nee na boo takkee jigéen ju amul diine noonu nga def da ngaa dóor sa loxo ci ëkk ëkk mooy garab gu wow garab gu dee nga fekk bant bi ne këcc taxaw nga dóor ko kurfeñ du ñaar yonent bi nee na ku takk jigéen ju amul diine noonu nga mel ëllëg foo jaar di nga jooy parce que say njaboot duñ yaru léegi nag ñu tere ñu yéeféer bu fekkee dañ laa tere jigéenu jullit bii nga xam ne dafa yaafuus amul diine léegi nag nga bëgg dem takk yéeféer waxuma la la nga bëgg dem takk koo xam ne moom gëmul diine ni yàlla teree nga takk jigéen boobu ba mu ne la jëlal jaam bu jigéen bu jullit noonu la ñëwee wëlbati aaya bi mu ñëw ca góor ña moom it ca jigéen ña mu ne wala tankihul mushrikin hatta yu'minu wala abdun muminun xayrun min mushrik walaw ajabakum yéen jigéenu jullit yi yéen la yàlla di waxal nee na bu leen góor yéeféer takk góor guy bokkaale bu mu leen takk góor tey li am ci sunu réew yi nga xam ne xoolal tubaab yu màgget yu yaafuus yi nga xam ne soo dëkkoon ak benn jullitu sénégalais bu am juróom-ñett fukki at nekk millionnaire mu ne la may ma sa doom bu jigéen bi da ngay bañ way eh, kii am juróom-ñett fukki at naan naa ko may sama doom bi am 19 ans mais kii est-ce que dafa dof pourtant boo ko bañee may sa mbokk jullit bii nga dëkkal donte ne am na juróom-ñett fukki at mag la wala am na juróom-ñeent fukki at pourtant tubaab bu ko gën a màgget bu ñëwee nga may ko quelle contradiction lu tax nga bañ kii da nga ne dafa màgget kee lu tax nga may ko ko xanaa màggetu waaye ay intérêt xëy na kee moo ëpp xaalis xale bi day tukki day tekki baat yooyu lañ dugal suñu bopp baatu tekki ba léegi mënatuñu nekk ay jullit baatu tekki xale jigéen yi ñoo ngi dugg tey ci ah ay loge yoo xam ne kenn xamul ndax tekki ay xale yu góor ñoo ngi dugg ci ay loge góor jigéen ak franc-maçonnerie ndax lan tekki ko wax ñu ne sama doom bi tekki na toj na kër gi jëndal na ma kat-kat nangam nangam hatta ndeysaan benn xale bu jigéen nee na ma barki démb diw ba mu commencé dem mbuur di indi xaalis ñëpp di wax magam yu góor yi mer yaayam nee na eh weer bu dee fukki junni la may jox seen yoon nekku ci allahu akbar seen yoon nekku ci weer bu dee fukki junni la may jox loolu fuñ jëm xale bu jigéen bu liggéeyul góorul yàttul weer bu dee mu jox papaam fukki junni wala yaayam mu jox ko fukki junni wala mu fay location wala mu fay ndox ah ak a ñoo wuutee ak a ñoo wuuteeg diine keroog ba Mariam nekkee ci benn néeg isolé wu ca àll bi Zakaria di ko xool di ko contrôlé Zakaria saa yu ñëwee ci moom fekk plateau fruits bu tegu fekk fa xaalis de plateau fruits xam nga lan la ko wax yaa Mariamu année la ko haazal waaye Mariam lii foo ko jëlee xoolal ñun léegi dootuñu wax sa doom bu jigéen lii foo ko jëlee non parce que olof yi nee nañ ko ëmb sa sanqal ëmb sa kersa fukki junni yi ñoo lay teree wax 2000 francs papa jëndal ataaye loolu la lay teree wax dootoo waxati loolu mooy noppil tëjal sa gémmiñ waaw mais xanaa ñun du ñu ay jullit xanaa xamuñu ne dund bi nuy dund ay waxtu kese la billahi wallahi wa tallahi walaw ista alfa amin wa alfayni baadahu fala budda yawman tadxulul qabr soo dundoon junni at suñ la wisaatoon junni at yi yeneen junni yàgg yàgg yàgg yàgg di nga dugg bàmmeel te wallahi mbokk yi suñ duggee bàmmeel wallahi danañ xam ne dund bii nuy dund ak dund bàmmeel du benn wallahi te suñu mbir dana leer loolu lañ war a xalaat mais tey am am kenn xalaatatul dee kenn xalaatul ne adduna bi bisa ngi ñëw loo fi am wallahi di nga ko fi bàyyi danañ la jaarale benn porte dugal la ci morgue bi sang la sang la teg la ci kanamu jàkk ji ñu jullee la ñëwu la armeel yi ñu suul la ñam ñi bisi yow doong lan fay bàyyi su boobaa nag nga dund beneen dund bu bokk la dund bi nga doon dund àdduna mbir yooyu la ñuy teg suñu kanam mbir yooyu moo war a leer suñu bopp su ko defee nu nekk ay jullit waaye bu nu jiitalee àdduna ñu ñuy woo ci kéeféer dinu woo ci ñàkk gëm yàlla dinu woo ci ay mbir yoo xam ne kenn xamul fu muy mujj yéeg ñun ëllëg day détruire suñu dund yàq suñuy dund doom loolu war nañ ko xalaataat ci lépp lu ñuy def balaa ñuy dugg ci benn mbir képp koo mën a àndal képp ku la mën a woo képp koo mën a faral képp koo mën a bëgg waxuma sax ci mbirum politique xataa ci diine ji xataa ci diine ji laa wax am na fi ñoo xam ne dañuy détruire société te ci diine lañ koy teg fu ñu yóbbu nit ñi ci bàyyi loo leen sharia islam bàyyi loo leen lu yàlla bëgg bàyyi loo leen lu seyduna muhammad rëdd te mbokk jullit yi ci ñun képp ku yaakaar ne di nga topp keneen ku indi njub mu gën a baax njubu seyduna muhammad ab yéeféer nga képp ku yaakaar ne man li ma topp moo gën a baax li fi muhammad indi woon fa wallahi bu yóbboo nga bàyyi julli ndax yàlla du la nangul julli képp ku gëm laa wax ne man lii ma topp yoon wii kii may xool kii may rey lii muy def moo gën a baax lu seyduna muhammad indi woon bu yeboo nga noppalu ndax yowmal xiyaam kenn du seet kenn lu nga indi woon ku dul muhammad liir bi bi mu juddoo ñi woo imaam na ko tudd imaam bu mu ñëwee turu muhammad la wax ci ñaari nopp yi waxul turu papaam waxul turu yaayam waxul xeet bi mu bokk waxul turu sëriñ bi waxul turu kilifa gi waxul turu njiitu réew mi turu seyduna muhammad lañ wax ci ñaari nopp yi ndeyjoor ak càmmoñ nodd ak lixaam julli jot xale boobu ñu tuddoon léegi nodd wax turu seyduna muhammad ci noppam ci turu seyduna muhammad lañ koy woowee nodd bu ñuy julli léegi bi bilaal bi di nodd léegi la turu kan la wax ci biir nodd gi kenn kese la wax muy seyduna muhammad suñuy lixaam léegi tur boobu lay répété waat ci biir julli gi taaya bi bu ñuy taaya suñu taaya du mën a wér lu dul ñu tudd turu muhammad mu des benn nag bu mag bi nga dugg biir bàmmeel ñu suul la nit ñi di ñibbi malaaka yi yëkkati la ne la muhammad moomu loo doon wax ci moom allahu akbar kon kay kooku jar na xam waaye buñ la tàqale koog moom ñu wan la yeneen i modèle ñu wan la yeneen i nit ñu wan la yeneen jëmm ñu wan la ñu wan la ñu wan la ba nga xeeb muhammad bis boo duggee bàmmeel di nga màtt sa ñaari loxo yàlla moo ñu nettali ci suratul ahzab yawma yauddu zalimu ala yaday bis boo xam ne nit ku doon tooñ day màtt ñaari loxo xam nga lu muy wax yaa laytani way man yaa waylataa way man torox naa laytani ittaxastu maa rasuli sabila su ma xamoon ma jaar ci yoonu yonent yàlla muhammad kon mu ngoog ku toppul muhammad ëllëg yowmal xiyaam waxuma benn loxo ngay màtt waaye ñaari loxo ngay màtt إخوة الإيمان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله وكي جلدي أب جلد yàlla day rëy ci kanamam ab julit mbirum islaamam diineem daf koy fonk matt ko ci ay dëgëjëm yonent bi doon na wax ne abdu alayha bin nawajiz dugal leen seen diine ci seen dernier bëñ ngeen matt ko mais tey xataa sax ci diine ji da ngay dégg ñu ne islamologue islamologue diine bu ñu log boo ngaa ngeem wadd diine kenn du ko log dañ koy matt loolu la yonent bi wax addu aliya bin nawajis diina kenn du ci duggantu maanaa du nekk jullit rek ci ay waxtu ci ay bis ci ay guddi ci ay fan bu nee bëccëg ñu ne tey laa ajjuma jumaa yi fees ñëpp bàyyi li ñuy def julli ji bu ñu ne korite jàkka yi fees bu ñu ne tabaski jàkka yi fees ñu jàpp ne ñett yi rek mooy diine ndax suñu bopp la diine lépp la alxaya manhaj la dundin la aw dundin amoo droit sax tabax sa kër lu dul nga laaj nan la lislaam wax néeg yi nu ñu war a jublu ñu ne la nii la jublu noonu téere bu ndaw bi ñu njëkk a bi ñu njëkk a jàng ku jeexal alquran Sénégal boo fi jàngee diine boo jàngee alquran ba nga jeexal dañ lay yóbbu ci borom xam-xamu sharia yi ñu jàngal la commencé di la jàngal fiq téere bu ndaw bi ñuy njëkk a jàng mu ngi tudd al axdari moom ngay def première moom ngay njëkk a jàng ci fiq ci Sénégal laxdari bu ñu fa demee dañ fay fekk borom téere ba ne ci ab jullit wala yahillu lahu an yafala filan hatta yaalam hukmallahi fii amoo droit def benn mbir lu dul mbir mi bala nga koy def da ngaa war a laaj lii lu ci yàlla wax loolu mooy mbirum jullit jullit mooy koo xam ne balaa muy def dara allahu akbar danaan waaw man nga ne dama bëgg a tukki waaw yàlla lan la wax ci nañ tukki yonent bi nan la jàngale nu ñuy tukkee ñu wax la ko waaw man de dama bëgg a jënd kër nan la yonent bi wax ñu wax la ko man de dama bëgg a takk soxna nan lay islaam wax ñu wax la ko voilà waaye ñun ñun duñ tàggu yàlla duñ tàggu yonent saa yoo déggee julliti Sénégal di tàggu yàlla wala yonent day fekk mbir mi pere na même même même ku feebar sax soo ko yóbbee ci sëriñ si ba ñu lekk sa xaalis ba mënatoo dara nga ni ñu ne la yóbbu ko kër docteur nag nga dem kër docteur baj bu jeex nga indiwaat ko ci kër gi ne yàllaa ci des allahu akbar yàllaa ci des pourtant ci yàlla nga waroon njëkki balaa nga doon dem ci sëriñ see kër docteur ci yàlla nga waroon njëkk waaye ah ñun de wër nañ ba sonn léegi de yàllaa ci des xanaa ñu toog xaar gis nga même yàlla sax lu tërmi ah mooy sunu diine li mooy sunu problème au lieu ñu njëkkee ci yàlla chaque jour ci moom la ñuy mujjee même sax xale bu jigéen bi bu fowee ba musiba dal ko dañuy ah lii de ndogalum yàlla la gis nga kenn mënu ci dara ndogalum yàlla la su ko defee ñu ne papa ji delloo si sa xel bàyyi ko mu toog yéen a ngi nii nag gis nga lii dara ndogalum yàlla yàlla moom ndeysaan du def lu baax amul lu baax ci Sénégal lépp loo dégg ñu koy delloo day fekk c'est fini ah ndeysaan même sunu carte d'identité yi sax looloo ci nekk fois la ñu mujjee lu ngeen bind ci première carte d'identité yi hein wax leen wax leen ak man imam bu la laaj da ngay tontu une un peuple un bi fois moo mujj nga ma mujj gis nga fois moo waroon jiite ah même sunu carte d'identité yi yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal na nu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم المفلحون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحين واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم